bu ñuy tudd kenn ci taskatu xibaar yi wane pas du ñu mën a naatable li nga xamante ni may sa Diop dal na ko fi def tey mbokk xarit ak am di jàmm daje ci l'hôpital principal bu Ndakaaru ngir daal di wane seen cofeel ci jile jëm ji fi jóge kóllëre moo ñu fi andi parce que Jean sa Diop man maa ngi fàttaliku bu may nekk première année CESTI ñu dem Walfadjri pour def stage presse écrite bokku na ci ñi nga xamne ñom ñoñu dalal fofu mom ak dem ci yalla Mamadou bakari Traoré parce que man sax ci bakari Traoré la nekkon man sport parce que man dama dan yeungu commencé di def journalisme sportif ak ñom Tidiane Kassé dem si yalla sid Lamine Niass nekkon seen kilifa ñoom ñëpp. Jean euh dañu bokk euh depuis wal Walfadjri la tambalé di liguey ci wal FM lolu depuis 2000.

nekkoon foofu ci wàlluk waajtaay néew bi nga xamante ni war na dem fii ba njaga ñaaw di ñu xamal li di xam nga sa waxuma la mu nekk ki nga xam rek mais sa màgg aussi bu demee ak yow noonu vraiment bon mais rek dama dellu gërëm yàlla xam ne bon c'est ça bon euh, dafa noppalu quoi c'est vrai que il était malade depuis 2010 euh, mu defee son AVC

Hameko, ko ci lu bax nek itam modèle ci walu éthique xam nga journaliste bu amul éthique rek euh, ñak na lepp donc Jean Meissa dafa doon ci ñu bëri ab référence war na doon di doon itam ab référence ci jeune journaliste yi nga xamante ñuy doga doog dugg ci profession bi ak itam ñu ci nek nek ay ndaw Jean Meissa dafa war a doon référence ci ñoom. sa doxalin ci wàllu journalisme mu méngoo ak lu ñu gis ci euh, donc ngay bañ di dugg ci affaire guerre ak yu demee noonu moom yooyu dafa gëmoon loolu parce que man je sais que plume xalimam ñaw na ba nga xam na ay organisme international wala mënoon na sax liggéey feneen di am ay millions mais dafa choisir moom journalisme mu nek sacerdoce ci moom. ay xaritam ak i am di jàmm ñëwoon fii ci l'hôpital principal bu Ndakaaru fas ko koo gunge ca këram gu mujj fële ca ñaaw di ko ñaanal rek yàlla daal di koy yërëm te oyofal suuf ci kaw boobu la